Agora que manca! Mas, mas, mas, Aïssatou Ndoye. Euh, maman Aïssatou ñu gis la nga ñëw euh, euh, ki nga xamante ne rek moo di Khalifa Babacar Sall seet si leen ma bëggoon xam sa taxawaay tey. ah bi de Khalifa rek ka waral sama président moom moo fi indi daal moo tax ma ñëw fi wakaam laa jógee na ñëw fii ñu ñu si mouvement wakaam bi lañ bokk. ah d'accord wakaam nga jógee fekk si fi nga xamante ni moo di caravane bi fi ci yow. waaw waaw ah, tey ñu ñëw gis nañ la maire Seydina Issa Samb bi mu génnee buntu këram. la ko euh, FDS yi commencé di sànni li nga xamante ni moo di grenade lacrymogène euh, pour euh, disperser foule bi naka nga ko jàng. ah soxor rek pour man dañu si dañu ñu signaler rek soxor rek moo ko waral mais du tere daal bañu ñu si dara sama xalaat daal bañu ñu si dara. même bu dul yoof rek même euh, fi nga xamante ni si àll bi la sax euh, ki nga xamante ni moo ne Khalifa Babacar day am problème def li nga xamante ni moo di caravane ndax loolu du wàññi tey jii nii euh, wala ngeen am benn ragal sax toppaat ko beneen yoon. ah déedéet ñun chaque jour ñu ngi fi chaque jour ñu ngi ko mi mu oote ba tey chaque jour ñu topp ko fu ñu dem dem a aan belleer lañ nekkoon te fekk nañ fa force de l'ordre mais terewul ñu daal fu mu ñëwoo ñu nga fa daal. ah ñu ngi ah, jaar jëf. baax salaamaaleykum sëñ salaam wa rahmatulah. tur bi nan la. Majib euh, ñu fekk la fi nga xamante ni moo di Yoff ci caravane Khalifa Ababacar gis nañ ñi nga xamante ni noonu la demee ban appréciation. waaw bi ñu si am mooy gis nga nit bu fekkee ne dafa am lu mu bëgg di ko uti ji da koy bàyyi mu uti ji ko parce que tey jii nii ñun dañu àndaal le maire Seydina Issa Laye Samb kon su fekkee ne moom dafay dalal candidat muy le président Khalifa Ababacar Sall normalement pour man warul mën a am problème. parce que Yoff ku nekk xam na ne dëkku diine la dëkku yar la dëkk la boo xamante ne dañu am diine maanaam gaaw ñu yëngutu kon su fekkee gendarme yi dañu dugg fekk ñu xalifa jóge kër kër monsieur le maire jëm fii nga xamante ne mooy si porte parole des Layènes si ndijaayam am naa yaakaar ne warul man a am problème problème amu fa mais su fekkee dañu tiire ay lacrymogène rek ñu ngi bëgg indi problème parce que Yoff nag dañu nekk dëkk boo xamante ne dañu suudéwu te lii bu dee am bu boobaa waa yoof dañuy gis seen bopp te bu ñu gisee seen bopp mu xaw a métti moo tax daal manoon na ñàkk parce que defuñu daal lu ko ja loo xamante ne war na war nañu tiire ay lacrymogène parce que diggante kër Meeraaf yi matul 150 mètres bu doon dañu jël autoroute bi sax waaw bu doon dañu génn noon sax waaw mais biir Yoff traditionnel lañ nekk kon defe naa lu yooyu yëpp war na mën a ñàkk daal ah. ci buntu kër maire tey jii boo xoolee buntu kër maire fi ñu taxawoon noonu. jëluñu sax espace su cent mètres parce que ñëpp génnuñu comment mais tey ji boo xoolee liy jot am moo tax sax boo xoolee ñi ñi génnaan leen parce que ñëpp génn leen te loolu moo ko waral. sax. waaw ah, waa ñaawlu nañ ka de ndax ñun yoof moom tooñu ñu kenn dañu ñëw rek pour béggee waaw oo suñuy nit waxtaan ak ñoom kon nag nañ ñu bàyyi si suñu jàmm yoof moom dundewu ñu no violence non violence rek la ñu dunde waaw. kon nag nañ ñu bàyyi ñun ñu def suñu caravane si jàmm ak salaam ndax ñu ñëm ñoom ñëpp ñu ngi def seen caravane te kenn téyewu leen kon nañ ñu bàyyi ñun tooñu ñu kenn dañuy def suñu caravane si jàmm ak na ñibbi sa kër ndax ku si ne da nga jaboot nañ ñu bàyyi ñu liggéey suñu liggéey dem ñibbi ndax lii fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi bëgg romb war na romb fii te dina ko romb bu soobee yàlla waada rek mais ndax Seydou tey jii kontaan ngeen si li nga xamante ne noonu la ñu téye téye bu baax Seydou jorofët sëtëb Seydina Limaamu bi zéro amul benn défaut amul benn sikko ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na amaat beneen deuxième mandat loolu rek lañ koy ñaanal ñun. Euh, ndax niñ leen di dispersé du tax beneen yoon ngeen ragal topp. non ñun duñu ragal ay lebu lañ ñun duñu daw ay lebu piir lañ Seydi rek avec Seydi fu mu ñëwoo ñu wuyu ko lii du dara ci ñun lii lu ndaw la rek lii ak politique ñoo ànd lii politique ñoo ànd. asalaamaaleykum mama euh, moom ñu ngi ko gis mu ngi téye mottali yéene bu xalifa Ababacar Sall xanaa euh, moom ñi ngi ko gis mu ngi téye mottali yéene bu xalifa Ababacar Sall xanaa kii rek lañ bëgg socialiste yu yàgg lañ borom dogal nag sëy di ñëw ñu ànd ak moom jusqu'à la mort jaay bii ndax sëy di l'accord moo politique a ànd ñoo ngi fii toog ci kippaar ak maam la ay buñ ne lacrymogène naatee tamit ñu dëkku ko rek fu nu yem rek mu neex. mu mel ni Seydou da leen ko jaral kon. lan ma ne mu mel ni Issa Laye Samb da leen ko daral nañu lu raw lool ndax xale bu ndaw la ñëw nag di defar dëkk bi lëntalante fu fi nekkoon yëpp puus na ko wala xale yoon nag ñu ànd ak moom jàppale ko ndax at min toll nii da du atom xale yi xale yee war a jiitu defar dëkk bi mag ñu topp ci lii moo tax ñu ànd ak moom. loolu rek moo tax ñu ànd ak moom. lan nga koy wax moom mu nekk xale jiite dëkk bu mel ni Yoff gis nañ divergence bi nga xam te ne moom moo mu gën a góorgóorlu rek ndax mi ngi ci nag mi ngi góor góorlu mais mu gën a góor góorgóorlu rek ñun ñu ànd ak moom rek lépp loo xamante ne nii nag maire war na ko def ci Yoff ah ba mu ñëw keex léegi yàggul de mais mu ngi koy def mënul def lépp nag mais mu ngi juyeem. ñu ñaan yàlla nag yàlla gunga ko ci barkib maamam ba mu yeggale mission bi ñu amaat deuxième mandat àndaata xalifa rek xanaa lii neexule lan ngay wax waa Yoff yi nga xamante ni ñoom la jiite naka lañ ko war a jàpp jàppale ko rek jox ko confiance ni ñu ko joxe woon confiance ndax ñu ñëpp dañ koo wóolu jox ko confiance yàlla def suñu borom ñu vote mu gañe kon na confiance boobu la ñuy fiddali rek di ànd ak moom xamante ni noonu la ko force de l'ordre di euh, dalalee d'abord loolu waaw mais rafetlu ko dëkk bu toll ni yoof kilifa yu bari dëkk kilifa yu bari tëdd si suuf si nga jël ay grenade di ko sànni fii rafetul même bu dul Yoff sax warul ñun grenade man grenade dama ko miis sama diwu yaram la 2002 ba léegi ñoo ma koy sànni ba ma nekkee opposition ànd ak sama baay Khalifa Babacar Sall ba léegi ñoo ñu koy sànni li ñu def nii nag amul sens terewul li ñu def ñoo koy def ñoo ngi def suñuy porte à ñoo ngi jox joxe suñu flyers ñun xeexuñu xuloowuñu président Khalifa jàmm woote ak salaam ñoom mënoon nañu ñëw teg seeni oto xool ba xam nit dafiy taal puno wala dégâts day am benn dégâts amu ñun nitu jàmm lañu xeexuñu xuloowuñu Issa Laye moo aya tey ñu ko doon wuy si dañu ne copp wàcc ñu dóor ñu ay grenade ak suñuy kilifa wante dañ leen di bàyyi yàlla ak yonent bi ak Serigne Babacar moo ëpp doole président Khalifa dafa leen waxu leen yéen ñi yéen ñi journaliste yéen bàyyiwuñu leen yéen chaque jour ñu mbugal leen am luñ leen def ak keneen ak keneen a ah, réew mi dafa am kumba am nday ak kumba amul nday waaye ñun ñoo teggul suñu tànk fu président Khalifa Sall woote dañ koy wuy ji déggee du ngeen daw benn yoon macha allah duñu daw am nañu yar am nañu teggin duñu dépassé kenn parce que président Khalifa loolu la ñu yare dépassé wuñu kenn loolu la ñu xam loolu la xam te loolu la ñu yare dépassé wu ñu kenn dugg si benn groupe waxuñoo kenn barki Serigne Babacar teg ak tey la ñu wax munoon nañu tontu lu ne nag mais amuñu jot tontu ñu daal topp ñu kenn liggéey la ñu xam topp ñu kenn ku dul président Khalifa te yàlla na yàlla jël réew mi teg ko ci loxo muy cinq cinquième président boobaa yéen journaliste yi ngeen noppalu. dootu dootu leen ko sànni da ngeen di noppalu nekk si jàmm ak salaam la moo fi jar leen li li nga xamante ni moo di Seydina Samba maire Yoff nekk euh, doom ci Khalifa Ababacar Sall ñu investir woon ko niki ñaari at ci ren ndax kontaan ngeen ci retour yi ngeen di am ci liggéey bi. waaw kontaan nañu parce que moo ngi liggéey moo ngi liggéey Yoff am na yar teey na te moo ngi liggéey gis nañu liggéey moom avant ñun ñu koy gis ñu ñu dëgg Grand Yoff ñu mu dëkkal ñoo ko njëkk a wax te i ñëwee dañ si teg suñu bët macha allah moo ngi liggéey ànd ak ñoom grâce si jéen nag ànd ak ñi nga xam ne rek ñoo gérer commune bi macha allah ñoo ngi liggéey yal na leen yàlla lafal cat xalifa Ababacar Sall cinquième président sa kaw sa kanam waaw sëfi xalifa waaw maa ngi nii jóge rek di coordination Pam Madiop Madiop Diop maire Grand Yoff maire bi nga xam ne bu taxawul di car taxaw na set moom rek lañuy topp topp ñu kenn at président Khalifa. tur bi nan la. Ndeye Diouf. Euh, ngeen ñëw euh, ci euh, caravane Khalifa Ababacar Sall bi fii ci Yoff ñu gis ni ñu leen teertoo nag ngeen ko affaire bi moom dëkk bi amul yoon te à chaque fois ñun jàmm rek la ñuy dox te jàmm la ñuy wax je pense que am nañu droit génn manifester am nañu droit mobiliser am nañu droit campagne c' est vrai c' est vrai que élection xamaguñ kañ lay am mais comme dañoo nekkoon ci période électorale kon am nañ droit dox doxu ñaxtu. mottali yéene wax ak askan bi mais dañoo génn malheureusement ñu sànni ñoo ay grenades lacrymogènes te chaque fois ça se passe comme ça donc malheureusement xamuñu ban dëkk lañ nekk xamuñu ban réew lañ nekk dëkk bi dictature a fi nekk je pense que ku ne am nga droit dox toxu ñaxtu mais nag yàqaluñu dara def naa tey la ñu gën a dëgëral suñu bopp tey la ñu gën a wóolu suñu président Khalifa Ababacar Sall te incha allah bu soobee yàlla bu dee li yàlla mayee jógewu fi ñu ak ñoom ba pale incha allah soobee yàlla mais ndax liñ leen seen doole gënoon na métti Khalifa Ababacar Sall gënon na metti ci mom tej nañ ko fi prison presque 2 ans yo xamni ñu ci prison bi fek ko fa ak ay proposition yoo xamante ni xam ñu réew mi di doxé mu bañ japp ne man askan bi moma ñor askan bobu nak moko ñor te ci lañuy nekk même bu ñuy xoktal bu ñu tëjoon ñun ñëpp fu ñu dem ñu sañu ay lakk di mojo jour dinañ gën dinañ wacc terrain bi ba ak ñuy am luñu bëgg inshallah allah waaw alaykum mang leen nuyu yéen man mang tuddu amé Aminata Gueye dëkk bâtiment di responsable politique bu taxawu Sénégal bu nekk Gueule Tapée Fass Colobane waaw nit ñu tettoo moom du bett kenn ndax à chaque fois bu xalifa génne rek nii rek lay demee xalifa nekk na en détention pendant trente deux mois ñu nekk si subax ngoon bu dee bëccëg di àndax moom di xeex ba yàlla ñëw indi ndam si joxe dëgg mu génn terewul ba suñoo découragé ñu topp ko fu mu dem fu mu ñu woo ñu uyu ko parce que dañoo xam ne ne dafa nekk nit koo xam ne c'est un leader boo xam ne incontestable kenn du koy werante kenn nekk na leader boo xam ne du dugg si lu ñàkk fayda du wax lu ñàkk fayda toujours day joxe idée ak xalaatam yoo xam ne ku ko déglu di nga si jëlee leçon lu bu bari. Euh, sànni ñu ay lacrymogène nag taxaw ñu découragé tey nga ñuy sànni ay lacrymogène suba ñu ñëw taxawaat ñun ak xalifa ba pale ñun ak xalifa ba pale Macky lu mu si bañ ñun bañuñu ko si fi may ni am du ñu dellu gannaaw. li ñu nekkoon di ko dox pour ñun dafa légal parce que amul benn arrêté wala décret bu ne waru ñu def waruñu def campagne. décret bi président jëloon projet de loi bi assemblée jëloon jëloon conseil constitutionnel dindi na ko dàq na ko donc amatul xam nga donc dañ moo taxoon ñu ñëw pour def activité. mais comme ñëw nañu fii ñu sax sax ñu la Coromagène porte parole xalif général des Layènes ne bu sañoon ñu arrêté tey caravane bi. dañuy topp ndigal ndax ñu dañoo am kilifa te moom mooy suñu kilifa donc comme ñaan nañu loolu il faut ñu def ko moo tax ñu arrêté caravane bi ba beneen yoon incha allah ñun dañuy def moo yéene. mottali yéene ndax allah dañuy continuer mais bu bu yoof tey dañu koy arrêté ndax ndigal lañ jot si kilifa bi. à taxaw kenn mënuñu empêcher ba campagne électorale mais dans le respect des autorités religieuses kilifa gi nee na jàmm moo gën ay te lim ñuy ñaan mooy ñu bàyyi lii ñu nekkee moo tax ñu dellu ginnaaw nangul ko loolu parce que ay kilifa Dakar mosuñu bañal dara. chaque fois bu Khalifa bëggee dara magi Dakar a kilifa Dakar jàppal nañ ko moo tax on a fait le choix nangu ko li mu bëgg mais incha allah demain on est à Rebeuss après demain on sera à Patte Grand Médine on va faire le tour de Dakar kenn mënu ko tere. incha allah jërëjëf. rahim asalaamaaleykum mbokk yi ñu may ñu nopp tuuti ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci seen taxawaay ndax ñëpp xam nañ ne réew mi fukki at ak ngi nii ci coono. tolof tolof ak mitit la ñu nekkee fukki at ak juróom a ngi nii tey xalifa Sall daan bawoo suñu kër ñëw dox si ñëw seet si suñuy kilifa waxtaan ak ñoom te xeer mësu fi jóg weñ mësu fi xoos nit donc lépp luñ def warmaal nañ dëkk bi warmaal nit ñi warmaal kilifa yi nga xamante ne ñoo tey dëkk bi ñetti fan yi ñu weesu gis ngeen ay caravane yu bokk ci yeneen coalition ñëw ba suma buntu kër ma taxaw wàcc saafante ak ñoom ci jàmm ak yar ak salaam li ñu war nag ci yoon def nañu ko ndax bind nañu ñu war a bind wax nañu ak ñu war a waxal xamal leen ne ñu ngi toll ci période campagne électorale te dañu war a def suñu dox mbokk fii ci biir Yoff ndax démb bu muy metti suñuy maama fi nekkoon ñu dox tey nag doon ay ndaw ànd le président Khalifa babacar Sall ak le maire Barthélémy Diaz yalla def s'il vous plaît s'il vous plaît yalla def fani yep ñu ngi dox bir ndakaaru yalla di ñu tagatal xoli di ci duggal le président Khalifa babacar Sall lolu nak kuko gis nga don ragal di nga tek ay ndeug sarax pour mën teunk li nga xamantene ne yoonu Khalifa Sall waye lolu duñ ko nangu ci kilifa yi ndax ñun xam ngeen fi ñu bokk xam ngeen fi ñu nenyu kilifa yi ñaan nañ ñu ñu nangul leen ndax nit da ngay nangu am kilifa ndax ku nangul am kilifa mëno ilif kenn sanga bi nak ñaan na ma may ko ndax moy sama waref ci ñek ak teranga ak yar suba lañ daan def di dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi nañ ko yeggali ci jamm ak salam li ma leen di ñaan mooy ñu bàyyi tàccu yi ndax fii quartier diine la waaye nañu ànd ak déglu waaye lii lii luy sax la luy jebbi la luy ami reen la te luy jëm ca kaw la ndax ndogalu suñu borom la donc la doon kàddu yi di leen massawu coono di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf li ñuy def di ko wax askan wi ak électeurs yi nañ ko seqal dem waxtaan ak ñoom

tay on continue les activités mais bu à la demande des autorités religieuses on y sur le responsable euh, l'a dit tout à l'heure on a été voir le porte-parole qui parle au nom de la communauté nous lui avons fait part de nos des raisons de notre visite et lui-même est informé de la situation. Il a pensé que dans une cité comme celle-ci, dans une contrée comme celle-ci, dans une communauté comme celle-ci, il est des choses qu'on peut ne pas vivre ou faire vivre aux gens de la communauté. Donc il nous a demandé, il a demandé surtout à Seydina, qui est le maître d'œuvre et qui est décidé à poursuivre sa manifestation, il l'oblige à sursoir à la manifestation. Et donc nous demandons à Sidina d'accéder à ça, ce qu'il vient de faire. Nous accédons à la demande du marabout pour sursoir à la caravane de Yoff. On verra un autre jour, parce que qu'on va revenir à Yoff, Inch'Allah. des orientations Du marabout, des conseils, des prières, des suggestions, ce qui révolte Seydina c'est qu'il y a eu deux ou trois caravanes avant la nôtre. Il y a eu d'autres des, candidats qui ont fait des caravanes et qui n'ont pas eu de problème. Pourquoi la nôtre a-t-elle connu ou connaît-elle cette situation-ci Parce que nous faisons peur ou parce qu'aujourd'hui, ils savent que la, dynamique qui est créée va balayer tout sur son passage jusqu'à la victoire, Inch'Allah. Donc, euh, il n'y a aucun problème nous accédons à la demande du marabout et des autorités, à qui encore une fois nous renouvelons notre reconnaissance et notre gratitude pour leur bonne disposition. Ils ont, ont, elles ont, ces autorités, fait preuve de disponibilité, elles ont fait preuve d'écoute et elles ont prié pour nous. Cela vaut toutes les visites. Donc, euh, Seydina, nous te demandons d'accepter la demande du marabout et de sursoir à la visite. Ces militants nous ont fait honneur. Aujourd'hui, vous avez vu, tous nos rassemblements, toutes nos caravanes sont monstrueuses. Et c'est ça qui fait peur. Et ça se passe dans la discipline, dans la bonne humeur. On chante, on danse, on entre dans les maisons, on va au contact des populations, on échange avec elles, on, est en train de recueillir chez elles avis, suggestions, soutiens, observations et parfois aussi des critiques et des reproches. Et c'est ça l'objet un peu de ce Dokmbok Montelienne. C'est d'aller au contact et à l'écoute des populations et recueillir d'elles leurs aspirations et préoccupations. Et cette démarche-là, sûrement, gêne beaucoup de monde parce qu'aujourd'hui, elle est fait l'objet d'une adhésion énorme et qui fait plaisir. En tout cas, nous continuerons là-dedans. Nous allons continuer nos caravanes et nous reviendrons Inch'Allah à Yoff faire la caravane. li ko gisandoo ginnaaw bi nga euh, le maire de Yoff Seydina Issa Laye Samba doon na fi dalal euh, ki nga xamanteni ni di Khalifa ababakar Sall ci ko tour bi nga xamanteni mi ngi koy def ci niveau national. ginnaw nak bi nga xamanteni la rek caravane bi départ na si euh, force de l'ordre daal di à sànni ay grenades lacrymogènes. ba tax na nak ñu demoon ci ki nga xamanteni ni porte parole xalif euh, général Layen bi bi ñu demee nag ñu seq ak ay waxtaan mu né ginnaw ay jamm ñu ko gisandoo nonu khalifa babakar Sall mu ngi tagato mu ngi tagato waaye nak di leen jox dig dajé benen yoon yéen ngi dégg. khalifa la ñu bëgg ñun khalifa la ñu bëgg ñun khalifa la ñu bëgg. xalifa la ñu bëgg xalifa la mu ngi noonu mu mel ni rek dañoo ni dañuy respecté li nga xamante ni moo di ndigal bi nga xamante ni moom moo fi jub ndax euh, xalif beeg porte parole bi heure bu ñu soxlawee xalif Ababacar Sall euh, wuyu si nañ heure bi nga xamante ni rek Barthélémy Dias soxla nañu euh, seen ay xalaat ñëw nañ ñu dalal leen donc tey ñoom bu ñu jëlee décision nii nañu woote jàmm ñu dakkal ba beneen yoon dañ koy respecté ki nga xamante ni moo di maire Yoff nag moom mi nga xam leen nii lépp lu waroon ci processus def na ko dem nañ bind nañ ngir am autorisation lépp li nga xamante ni rek yoon mayoon na ko def nañ ko ko waaye gis nañ li nga xamante ni noonu la caravane bi mujjee ñoom nag ñu ngi leen di jox di daje ci yeneeni fan ak yeneeni gox ndax ñee nañ mottali yéene bi dinañ ko mottali incha allahu rabbi ci yeneeni gox jërë ngeen jëf